loolu c'est très clair ñun dañ fi ñëw pour Bokande wax ñu ana Pape Mamadou sek suñu doom la suñu frère la ñun dañu ñëw en tant que activiste ci kanamu euh, euh, bureau administration pénitentiaire ñu wax ñu ñoom ñoom lan la lan la lan la leen peuple sénégalais bi def ba Macky Sall war leen manipuler ñoom ñu jàpp doomu sénégalais di dóor di rey ñun loolu lañ bëgg xam que administration def politique ñun nous sommes des sénégalais lambda nous sommes des activistes fa ñu benn parti politique dañu bëgg a xam ci lan la Macky Sall war a wiku bay rey ay doomu Sénégal di tëj di rey Pape Mamadou sek insuffisance rénale la am ñu xëy nañu dafa évadé nan la evade évadé François Mancabou dee na rey nañ ko dee na il a été torturé central dem sa dem dem rëbës jugee rëbës dem principal dee na c'est-à-dire problème mooy est-ce que Sénégal yi ñu ngi conscient ci li nekk ci xew Sénégal ñun nag en tant que Sénégalais on n'a pas besoin de cent mille on est des activistes, on de l'activisme. On est là devant eux, on attend Bocandé pour qu'ils nous expliquent en, réalité qu'est-ce qui s'est passé et qu'ils nous dit la vérité en nous regardant œil par œil. Comme ça, nous xool ko bët ak bët ñu waxante yeux dans les yeux qu'ils nous expliquent qu'est-ce qui s'est passé parce que li mu ñu wax doy ñu li mu ñu wax ci conférence de presse bi doy ñu doomu Sénégal yi Macky Sall moomu leen Sénégalais du ñu ay xar du ñu ay xar Pape Mamadou Seck dafa am jabar ami doom am ay responsabilité François Mancabou dafa am ay responsabilité jabar yori doom ñun gis ñu terroriste fii benn terroriste moo fi am Macky Sall la euh, le général de la gendarmerie là nu mu tudd sax. Euh, Moussa Fall ñoom ñooy ñoom ñooy les terroristes ndax ñoo terrorisé Sénégal ak Antoine Diome donc ñun ñu ngi fii di xaar bokkaan la ñuy xaar mu def mu wax ñu lan moo leer mu lan moo xew exactement ñu xam ko ñu wax ne ni Sénégal fii am na ay góor. ñun on n'a pas peur de ñun ragaluñu leen ñun Sénégal am na ay góor su fekkee dafa bëgg a agrippé ci pouvoir bi nañu rey ñun ñëpp on est prêt à tout waaw Macky Sall criminel Macky Sall dictateur Macky Sall assassin

criminel. Macky Sall assassin. Macky Sall criminel. assassin. Macky Sall criminel. justice corrompue. Macky Sall criminel. justice corrompue. Bokande génneel. wax nga sooy na suñu frère. Macky Sall criminel. Macky Sall assassin. Macky Sall criminel. Macky Sall assassin. Macky Sall criminel. Macky Sall criminel. Macky Sall criminel. Macky Sall criminel. justice pour Mansour. Voilà. Macky Sall le criminel. Macky Sall le assassin. Macky Sall le criminel. Macky Sall le assassin. Macky Sall le criminel. Wakandé menteur. Justice Mangabou. Wakandé menteur. Justice pour Mangabou. Macky Sall le criminel. Macky Sall le assassin. Macky Sall le criminel. Macky Sall le assassin. Wakandé menteur. Justice pour Mangabou. Macky Sall criminel. Macky Sall assassin. justice justice. justice pour marabout. Macky Sall menteur. Macky Sall assassin. Bokandé menteur. Bokandé instrumentalisé. Macky Sall criminel. justice assassin. Macky Sall criminel. justice assassin. Macky Sall criminel. Macky Sall dictateur. Macky Sall rey catholique. Macky Sall dictateur. Macky Sall rey catholique. Macky Sall dictateur. justice justice. contre vous. Macky criminel. Macky criminel. assassin. Justice pour Magabou. Justice, assassin. Justice pour Magabou. Macky Sall, assassin. Macky Sall, criminel. Macky Sall, criminel. Justice pour Magabou. yaa may takkal yaa may takkal. Justice pour Magabou. Macky Sall, criminel. Macky Sall, criminel. Justice pour Magabou. Macky Sall, criminel. Justice pour Macky Sall criminel. Macky Sall criminel. ngeen arrêté parce que ay malade yoo leen ko ñaan rek leen point de presse bi jeex na dam leen si li vous voulez mais fii bu leen filmer dafa am ay parce que c'est encouragé sa te lii mënuma ci d'accord parce ay malade ñoo tëdd ci bi fii fii infirmerie la donc s'il vous plaît tant que yeneen caméra yi doon continuer à à à point de presse bi na ñaan nañ leen ko woon nañ leen ci nekk teranga Vous ne voulez laisser avec eux. D'accord, c'est bon. Bokané, menteur Bokané, menteur Justice pour pas Justice pour pas Justice pour pas